jërë ngeen jëf euh, mbokki téléspectateurs yi ñuy baaxoo seetaan seen télévision Pikine TV waaye lëkkaloo ak mboolem bànqaas yi nga xamante ni moom moo di ay bànqaasam moo xam pikinebiz.com wala pikin News wala sax ngeen ñuy mën a topp ci Facebook bi wala ngeen ñuy topp ci TikTok wala euh, li nga xamante ni moom moo di Instagram ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo ci seen émission bu mag bii nga xamante ni moom moo di xamle ak sa délégué euh, tey nag wala xamle ak sa quartier tey nag euh, ñu ngi fii ci ginnaaw raay noor comme ni ngeen ko xamee euh, ñu fas yéene ànd séq waxtaan ak ki nga xamante ni moom moo di délégué abu Diop moom la ñu fas yéene àndal incha allah waaye di fàttali ba léegi fii ci quartier bi nga xamante ni quartier bi mun nañu wax ni nomination bu yees la ndax xam ngeen ni quartier Maguette Diallo lañ ko gënoon a tey nag euh, ñu ñëw ci quartier euh, ki nga xamante ni moom moo di Abou Diop euh, ñu daal koy nominé bu yàggul dara rek ci li nga xamante ni moom moo di ci teewaayu monsieur le maire ak mboolem autorité yi nga xamante ni ñoom ñooy autorité compétent yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci commune bi su ko defee rek dañuy daal di koy nuyu ginnaaw bu ko dalalee ci seen émission xamle ak sa quartier sëñ Abou ginnaaw bu la ndokkeele ziar la Euh, nuyu la ci turu pikin TV di la jox kàddu gi nga nuyu ak ñi setan wa waa alaykum ma ngi ma ngi nuyu nuyu waa pikin TV di nuyu quartier bi yépp di wax ni contane nañ ci choisir bi ngeen ñu choisir pour ñëw def ak ñun émission vraiment loolu moom mbégte la di leen sant di leen gërëm ci loolu vraiment sa romb ngeen kër délégué yu bari ñëw ba dugg fii loolu rek mbégte la loolu moom wax dëgg yàlla mbégte bu bu rëy la ñu ngi leen di nuyu di leen di leen dalal. Euh, ñu do ñu tàmbalee waxtaan wi ci li nga xamante ni moom moo di euh, quartier bi euh, mu mel ni quartier bi tey boo ñu doon wax. kan fan mooy quartier Maguette Diallo récemment nga yore ko muy quartier léegi abu Diop bantegtal nga ñuy jox ci quartier bi. waaw quartier bi am na tuuti historique parce que soo xoolee ñun quartier Birame Fall moo ñu ëmboon. ñu koy wax Grand Thiaroye Grand Thiaroye la woon euh, Grand Thiaroye 2 biñ demee quelque temps biñ ko découpé ñun ñu ñun ñu ñun ñu découpé ñu tuddee ñu Grand Thiaroye 2 bis euh, ki ko njëkkoon a yore nag mooy suñu suñu maam Souleymane Diaw moo ko yoroon bi ci jógee mu tàbbi ci loxo suñu kilifa gu ñuy wax tamit góor gi Maguette Diallo. waaw mhm. ah, ñoom ñëpp yàlla jël na leen yàlla leen yàlla yërëm te xaare leen àjjana. amiin yaa rabbi bi mu ci jegee ci la tàbbi suma loxo. Mhm. bu yàggul dara ñu def ay élection mhm. waaw mu mel ni quartier bi yor nga ko euh, avant ñuy def ay élection yor nga ko suma juumul benn at wala ñaari at lan moo la poussé en tant que jeune nga euh, nga nga ni da ngay yor quartier bi en tant que jeune te li ñu doon nemmeeku ci jeune moom moo di dem defi leneen euh, waaw quartier bi yor naa ko deux ans en tant que intérimaire bon li ma ci poussé nag euh, dafa nekkoon dama ko nekkoon ak samay moroom lañ nekkoon fii ci quartier bi ñu nekk ci comité de quartier man ñu ma parce que comité de quartier boo koy composé da nga koy composé ak ay tuus yu bëri représentant yu bëri man maa ngi ñëwoon en tant que représentant ASC Manko mhm. ñoo ma fi mandaté woon parce que boo xoolee côté bi maa fi nekkoon dirigeant bi gën a actif bon comme que dañ ko defoon mu nekkoon ci ndimbalu suñu benn kilifa buñ doon wax góor gi ngalandu parce que moom tamit daanaka moo yéen woon comité bi poussé woon ma ci tombeeg manko yebal ma mhm. bi ma ci nekkee nekk ci nekk ci nekk ci ba toll ci covid ñuy séddale ceeb mhm. góor gi màggat jàllo gis ni def nañ ci liggéey bu am solo mu dey ma ni ma góorgóoru leen quartier bi seen loxo lay mujj mhm. bon bi ma waxee loolu nag baat boobu moo ma toppoon topp ma topp ma topp ma ba bi mu fi jógee ñuy intérimaire yàlla dogal ñu réunion ko fii ñu nekkoon ak suñu mag bu ñuy wax Lamine mbay mhm. bon moom biñ ko waxee wax dëgg yàlla dañu woon daa bu sañoon daal day jiital xale yi rek topp seen ginnaaw. Mhm. ma nekkoon fi ak ku ñuy wax aale ak jibi jaata. bon ñoom xëy na euh, dañu jege woon Pam Ndiambé de trop ñu ne bëgguñu woon a jaxase quartier bi ak politique. comme dañoo nekkoon ak Pam Ndiambé. Mhm. bu ñu sañoon daal quartier bi dañ koy gis ci nit koo xam ni peut-être xëy na. yënguwul noonu torop torop ci politique mais ñoom ñëpp xam nañ leen ci Pape Ndiambé. Mhm. ñu ciy yëngu kon daal bu ñu mettre à l'aise quartier bi. ok léegi nag ci lañ ma poussé ma bañ bon bi ma réfléchiré ma xam ni bon bugguma trahir waaru góor gi. Mhm. ma ni naa jël mais nag nekkul sama yitte. Mhm. buñ demee ba ca bu ñu amee kuñ ko nañ ko ko jox ñu ni ma ok bon bi ma demee ci biir ci biir deux ans yi am naa benn expérience boo xam ni nit ñi li ñu lay wax mooy ah, mën nga ko. man lay est-ce que mën naa ko ñu mënoo mën nga ko parce que ni nga koy doxalee nii ku la gis xam ni mën nga ko suñu sañoon da ngay dem jusqu'au bout mhm. vraiment man mii sax amoon naa candidat man mii amoon naa candidat bu ma tegoon kan moo nekkoon sa candidat Omar Sagna moo nekkoon sama candidat man maa ko dem wax ko ko waxtaan ak moom ni ko posel mhm. bon mais finalement comme dëkk bi dafa jaxasoo woon bëri woon ay affaire yoo xam ni daal mhm. fa mu doon jëm neexuma woon te gisoon naa ne bu ñu seetaanoon mënoon na rëcc si suñuy loxo. Mhm. ma ne naa jël sumay responsabilité nga porté choix bi porté choix bi sa sama bopp. Mhm. moom tamit mu nekk nit ku compréhensif. Mhm. bi ma ko waxee dani ma nga yor ko ak ma yor ko ñooyam. su ma sañoon sax nga yor ko ndax man daanaka aw ma jot. ok yaa ko bëggoon rek. te mënuma la bañal dara. ndeysaan <laughs> muy la am solo euh, tey boo ñu doon wax euh, kan mooy Abu Diop hmm, parcours am lan nga ñuy wax. ah du dina jafe du jafe. parce que eh, koo xam ne si nii vraiment fi nga jiite tey daanaka mun nañ ni fi nga juddoo tey fi nga nekkee chef de quartier mun nañ ni daanaka fi nga juddoo. Mm-hmm. kon xam nga loolu pour nga wax si dina xaw a kii mais nag bon benn xale laa boo xam ne wax dëgg yàlla. Mm-hmm. at yi mais mu xaw a soog tuuti rek lu ne mu mu laal ko ngir luy jëmale kat joxam dara. parce que boo xoolee même li at yi yàgg bëri bëri mhm. euh, lu ma gis nii rek ko teg bu tegee sama loxo njëriñu quartier bi la ba bàyyi bokkoon nañ ci ñi ko yoroon di ko ok ci maam fanaan nañ ci mbedd bi di ngacc ci ndox fanaan bu bët set loolu def nañ ko ci quartier bi waaw loolu moom def nañ ko ci sonal nañ quartier bi mhm. beneen bi moo di jaar nañ ci euh, métier tôlerie apprenti yooyu yëpp mhm. allah euh, euh, muy quartier boo xamante ni ni nga ko waxee euh, am na ci fu mu tàmbalee ba egsi sa loxo tey boo ñu doon defal biographie quartier bi tey quartier bi ñaata kër la ak dëkkuwaay nu mu demee lan nga ñuy wax. quartier bi récemment bi ñuy dem élection def nañ recensement bi je crois amoon nañ. presque trois trois cent maisons ah. amoon nañ trois cent maisons ah wala lu teg tuuti. Mhm. su ma juumul. am nañ ko parce que récemment rek loolu loolu recensement bu bu yàggul dara la. Mhm. ñu préparé élection. ok war na ma presque daanaka un an. am nañ presque trois cent maisons ak lu teg chiffre yi laa jàppoon carrément. ok defoon nañ loolu amoon nañ recensement. vraiment. quartier bi nag vraiment euh, ni mu tëddee euh, am nañ fi am nañ fi am nañ fi am nañ fi ñaari école privée. am nañ fi euh, euh, am nañ fi clinique tamit am nañ ko fi ci quartier bi vraiment yooyu daal gis naa ko bi <laughs> te vraiment ñi ngi ñi ngi ñi ngi nekk ci ci ci voie développement <laughs> parce que soo xoolee am nañ benn tëli karo boo xam ne mi ngi traversé loolu rek gëm naa ne bu paree canalisation yu dugg. Mhm. allah. xam nañ ni du compétence su délégué de quartier ci yenn yi mais gis nañu côté sécurité dinañ ci wax tuuti ndax gis nañ quartier yu bari dañu am comité de de de vigilance boo xamante ni mooy saytu sax ci wàllu li nga xamante ni moom moo di sécurité te gis nañ ni wax nga ko sànq sa biir wax nee nga euh, ci comité de sécurité ngeen ngeen nekkoon ngir jàppale seen papa yi wala seen mag yi nga xamante ni ñoo yoroon quartier bi ndax yaa ngi waxtaan ak ndaw ñi ci wàllu maanaam sensibiliser leen ci côté sécurité. waaw loolu dama ciy sawar bu baax a baax parce que euh, récemment rek bi ma dajee ak commissaire bi. proposé naa ko dafa dama bëgg a créé waat comité de vigilance parce que am naa si notion mu ni ma nangul naa ko lenn rek laay def mooy comité de vigilance sant ñu ko muy régler problème yi jàpp leen rek indi ko du leen dóor du leen tàmm du leen nàccal loolu moom bu ngeen ñu ko mënee assuré garanti naa la nga créé comité de vigilance yow loolu moom commissaire bi nangul na ko tamaan ci xalaat tamaan ci waxtaan ak ay jeunes yoo xamante si nii bon pratiquement defuñu dara te li ma mhm. mhm. loolu loolu nan en tant que délégué loolu nan nga ko mën a mën lijjantee ci koo xamante ni amul ci koo xamante ni amul amul maanaam budget. ndax euh, du dañ lay voté budget délégué des quartiers su weesoo li nga xamante ni moom la ñuy koy dàmpee amul budget loolu nan nga ko mën a créer waaw loolu créé ko yëkkatil micro loolu créé ko pour man pour man jafewul. Mhm. day fekk population bi adhéré rek. ok population bi adhéré daal. Mhm. dina dina yomb parce que tamit euh, ku ñu ku ñu ku ñu fanaanal ci mbedd mi ba bër set. bu weer bi dee ñu laaj la 2000 francs mhm. ci buntu kër bu ne. wala 1500. loolu yaakaar naa lu am solo la. te comité de comité de vigilance dafa nekk loo xam ne nii euh, bis bu amee ci quartier. ah moo quartier bi am na sécurité 100 pour cent de mais gëm naa ne à 80 pour cent dina am sécurité mhm. te loolu xam ni ñi comprendre ñi xamoon ne amoon na fi buñ ko dekkalaatee mhm. buñ leen laajee kër gu nekk 3000 sax mun nañ koo jox mhm. loolu moom xam naa ne te loolu buñ ci sukkandikoo liggéey si te yaa pas mal ay bonne volonté yoo xamante si nii weer da daan day ñun di ñuy def euh, sécurité buñ def vigilance ñu ñëw ñu xaalis dañ daal di enveloppe may ñu di leen sen saa kon loolu yaakaar naa mhm. ci waxtaan mhm. naa ne amee dinañ delloowaat affaire mhm. bi fa moom ci quartier boo xamante ni commune bi mu nekk commune boo xamante ni la bu ñu miin la ci wàllu inondation ndax tamit ci côté inondation bi am nga ci xalaat boo ci indi pour appuyer pour jàppalee ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, njiital bokk moomeel bi nga xamante ni moo fi nekk waaw parce que man damay wax ne euh, commune bi lépp lu mu ngi mënal si bu dul bu dul yi nga xam ne commune bi laa wax rek lépp lu mu ñu mënal nañ la mun des ay ci canal mhm. mën nañ lu mën nañ ko suñu bopp mhm. moo tax lii euh, weesoo maa ngi wax ne dama bëgg a créer benn flow bu mag boo xam ne te maire wala diagnostiquer suñu problème mu quartier. ñun en tant que comité de quartier en tant que quartier. Mhm. dinañ ko diagnostiquer suñu bopp. Mhm. defar ko ba mu normal chaque année ñu liggéey ci liggéey yu am solo. Mhm. loolu moom wax dëgg yàlla parce que maire bi ci sama quartier la nekk. mën naa faa dem créer ko loo xam ne si dañ woote kon mhm. ko neex. loolu moom war na xalaat inondation sécurité lumière ak tout lépp lépp lépp ñoom commune bi dinañ yaakaar ni sax ñun ñooy état. ñoom dinañ ko mhm. macha allah macha allah euh, jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel ba léegi ñu ngi ci seen émission bi nga xamante ni moom moo di xamle ak sa quartier tey ñu nekk fi nga xamante ni mooy quartier abu Diop nekk fii ci euh, ginnaaw raay noor comme ni ñu ko waxee rek ñu fas yéene seq ak délégué bi waxtaan euh, su ko defee rek rési dañuy daal di dem déglu ji suñu éléments yi nga xamante ni defoon nañ ko micro trottoir déglu ji éléments yi ñëw ñëwaat incha allah. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Pikine TV ñi fi déplacé wu ñëw fii ci euh, quartier Maguette Diallo di quartier euh, Abdou Diop bi ñu élu récemment donc euh, quartier la boo xam ne quartier bu gën a yaatu presque ci quartier ginnaaw raay yi la quartier la tamit boo xam ne boo koy seet ñi ko mës a yor ñëpp. ay ay ay ndaanaan lañu ay borom xam-xam lañu ndax ki nga xam mo fi joggé di Maguette Diallo il était épaulé par ku ñuy wax Ngalandou Guèye mu nekkoon benn icône ci bir quartier bi quartier bi itam am ay ndaw ak ay mag yo xamné ne ñu am solo lañu bo limé ñom Djibi Diatta ñoom Ale Ndiaye ñom papa ak ñeneen ak ñeneen ñom Assane Lo donc moi-même Lamine Baye je suis man maay président comité de quartier bi comité de pilotage donc quartier le boo xam ne euh, ci wàllu ressources humaines yàlla may na ay nit ñoo xam ne ay borom xel lañu mais aussi ay nit ñoo xam ne ñu bëgg quartier bi ñu dëkk Abdou Diop nak suñu jarbaat la ñun ñoo ko yar suñu kanam la jikko mais so gisee ñu am courage am sañ sañ bay ko mu jitu c'est parce que xam nañu kër gi mu yaro té ñun ñoo ko yar té xam nañ ne tamit ay loxom set na mën na bokk ak man té bala lol di am dafa nekkoon intérimaire di Maguette Diallo dëddoo euh, boobu Pam diamé mo fi nek dañu waroon tégat un chef de quartier mais biñ ko fi tegee dafa nekkoon intérimaire manam du won officiel ndax dañ doon xaar set kan moko gëna yello biñ ko ko joxé ñaari at Abdoul def ci liggéey bu muccu ayib ñu ne nak fas wuy gagné kenn du ko changer on ne change pas un cheval qui gagne nañ ko conduire euh, ñun ñi nga xamné am nañ expérience nek ay mak nous ci donc c'est une promotion de la jeunesse parce que chef de quartier dañ le troisième âge bi il ngay liggéey pour retraité euh, dese jàkka ja rek ñu def chef de quartier Il def lu signer domicile maintenant il y a une nouvelle réforme délégué de quartier il faut que nous soyons des jeunes les jeunes yu am xalaat idées des projets Abdou délégué de quartier il a été élu euh, de la plus belle manière nous mu doon tel, daf écrasé parce que 220 voix la am ki mu am voix le quartier a choisi. quartier bi ñuy tànn nag moom la comme li ma wax nag jikko yi ñu gis ci le développement du quartier du ay du ay joxe ay domicile nangam nangam bëgg ñu gérer les conflits du quartier.

maanaam malpropre yooyu tamit dinañu xex pour mu dañ parce que quartier dafa wara set pour que xale yi fi nekk bañ am ay feebar yu bon ak ay feebaru jaaree yooyu nak délégué mu ci taxaw sur euh, le règlement des conflits tamit euh, képp ko xamné da nga am problème ak sa sa morom voisin fi du sétane muy dem commissariat té ñun ñu nek dañ koy régler balaa ngeen di dem parce que mba xam fa mu donné ben la ngeen fay régler mën nañ ko régler fi té kenn du fayee leneen aussi moi, sur le plan de l'éducation, nous avons nañ suñu yi ñu ci organiser renforcement scolaire pour les de manière gratuite xale yi classes classe nous nous regroupons nañ leen regrouper dans des écoles am nañ ay enseignants ak ay professeurs yoo xam ne dinañ quartier comité de quartier bi di appuyer avec zéro franc Nous ñu que le taux de réussite bi mu Nous voulons aussi l'autonomisation des femmes digène ñi nga xamné ñoo nekk ci biir quartier bi ñu baña nekk ay digène yo xamné dañuy tok ci mbedd rek di waxtaan. ñu doon ay digène yu productif c'est-à-dire am ay projet am ay formation pour que ëllëg ñoom it ñu mëna a dem ak seen bopp manam ñu am ce qu'on appelle l'autonomie financière. té loolu ñu ngi ciy liggéey parce qu'on a eu un partenaire ñëw na formel ñu fi plus de 50 femmes benn bëccëg avec Khadim Ndiaye ku baax doomu ginaaw raay la moo fi indi loolu jigéen ñi mën a defar savon mën defar eau de javel mën a defar madar di commercialiser et puis di ko delloo ci pour bopp muy delluwaat mhm. voilà le type de quartier que nous voulons mhm. l'insécurité aussi on va s'y battre wax nañ ko le commissaire de police les agressions les dépotoirs d'ordures ça yi ñuy takk un peu partout euh, ak bidonville yi jël garage rek ñëw takk ci kaw tali bi teg ko fenn sans sans raison mhm. donc yooyu yëpp ñu ngi ciy mais nag day doon xeexu suuf du lu ñuy xeex di mais ci suuf la ñuy dox li ñu war a dox parce que quartier bi dañu bëgg sur les 12 quartiers de Guinaw que le quartier soit le premier Et comme nous avons un délégué jeune il doit montrer sa jeunesse. incha il doit montrer aussi ses idées. Ma ngi tuddu Mayram Guèye. Mayram Guèye. Ah. Uh-huh. Tay ñu fekk le fii ci quartier Maguette Diallo ñu dénk ko ki nga xamanteni ni moom Abdou Diop. Mm-hmm. ndax xam nga délégué de quartier Abdou Diop. Mm-hmm. délégué de quartier Abdou Diop. bisimilah rahmaani Rahim. On billaahi mina sheytaani rajiim nuyu naa leen. waaw kooku moom boo ñu laajee mën nañ ci mën a wax loo xamante ni dinañ ko ci wax ndax Abdou Diop xale la bu set bu mën a yor quartier bi te macha allah te chef de quartier bu njëkk dañ daan wax naan mag moo ko yor waaye léegi xale yi ñoo yor léegi chef de quartier yi léegi boo seetee chef de quartier yi wër dox bi gox yi yëpp jeunes yi ñoo ko yor ñuy xale yi xale bu seetul doo mën a jiite te Abdou Diop yàlla dafa def baax na yaru na teey na ba ñun ñu seet ko doy ko voteel ko mu gañe carte bi ndax jikkoom moo ñu doy set na loxo moo tax nag ñun tamit mag ñu ñu jóg jàppale ko pour mu falu ci carte bi pour pour mu falu ci carte ñun ñii ñoo ko voteel mu gañe ñun ñii. ci moom. li ñuy xaar ci moom mooy rek mu jàppale gox bi jàppale gox bi góor góorgóorlu taxaw dëgër ndax xale la. xale la du mag bu njëkk mag mën nga sax taafantalu ngay rëkk dara wala dara waaye moom dafa nekk xale boo xamante ni dafa set tànkam dëgër li ñu koy sant mooy tànkam yi mu yor muy xale bu ndaw na jug sol ay botam taxaw dugg ci quartier bi xool fu problème am fu coow am mu nas mu nocc yooyu yëpp mu ngi lan ngeen koy yóbbante li ñu koy yóbbante daal mooy sécurité ginnaaw raay moom na gën a doy jeeg ji nekk fii tey kuy xëy 4 di du matin ngay dem dangay ragal dangay ragal a dem dangay ragal a dem de léegi kenn awatul yoon bi kenn awatul yoon bi loolu daal lañ koy ñaan mu gën cee taxaw dimbali ñu ci gox bi sarax ñu ci te yàlla tax mu taxaw sécurité bi gën a doy ci gox bi ndax kenn ñemeetul génn léegi kenn ni ñemeetul génn 4 heures du matin kii ma dëkkal nii day génn 4 heures du matin barki démb lañ ko fi doon bëgg a ba léegi dematul te day jaay day day daani dooleem ñun ñëpp dañuy daani suñu doole waaye kenn nangootul génn liñ koy ñaan daal mooy voteel nañ ko ba mu gañee ko te ñun ñoo ko bëggal suñu bopp ñoo xool ba mu neexuñ ñu ne Abdou Diop la ñun ñun ñoo xool ba mu neex ñu ñu ne Abdou Diop moo ñu doy ñu voteel ko suñuy kart mu gañe ba mu gañee nag doon na xale boo xamante ni daal xale bu set la daal xale bu set loxo la daal moo tax tamit yàlla jox ko lii mu yor bu njëkk dañ doon wax naan chef de quartier mag a ko yor waaye léegi xale yi mën nañ koo yor ndax xale yi dañoo taxaw xalé yi dañoo taxaw pour yor gox bi lool rong nak lañuy ñaan di ñaanal tamit yeen bi yal nako yalla may mu oyof ci bopam bobu yal nako yalla defal ci barki yonnati bi sallallahu wasallam wa salam wa di sant yalla rek bu baax parce que bo xolé ñi fi wax ñep mu naani ni <clears throat> mu nañ wax ni ay dekkando lañ mais dañ wax ak seen akulaay taala rek parce que ñep xam nañ ni quartier bi mom vraiment am na loo xam ne mu ngi fi te ñu war ko xeex insécurité boobu mu wax sànq léegi jaar nañ ci parce que ku dem ba toog commissaire na ko dama bëgg a créer comité de vigilance xam na quartier am li fi li fi manqué ba mu ma ko kon loolu ñoom loolu ñu wax dëgg la te incha allahu rabbi gëm naa ne xaw ma kañ lay doon prochaine émission mais di nga fekk mën la teg naa comité de vigilance incha allah beneen bi topp mooy dégg naa ñu wax problème mu euh, damay invité Euh, bépp jàngalkat bu nekk ci quartier bi bu seetaanee émission bi mu xam ni délégué bi mi ngi koy ñaan te dinañ ñëw waxtaan ak ñoom yaatal affaire bi dugal leen ci comité de karce bi dama bëgg ay cours de renforcement yoo xamante si nii suñu élèves yi nekk classe d' examen yëpp muy bac entrant sixième lépp bu mu si munti doon ñu ñuy dimbali ñu ñuy defal ay cours de renforcement dinañ ci waxtaan nag ba juboo jéemut ay euh, école yi nekk fii ñu jéem cee xool nan la ñu mën a def ba dem ñaan leen foofu ay journée yoo xam ne peut-être mercredi soir wala ci weekend bi mm-hmm. parce que bëgg naa même sax bu ñu tollee ci examen ba def ko ba mu jeex mm-hmm. waxuma taux de réussite bi mais élèves yi gën a am moyenne yu gën a baax ci quartier bi dama bëgg ñu leen di décorer mm-hmm. vraiment dajale leen ndax gis nañu euh, nga euh, nañu wax ni na ci yi xarañ ci si sama jarbaat la la sama jarbaat la fii la dëkk ci ginnaaw vraiment euh, ma xam ay waajuram xam leen bu baax mu nekk dëkk fii ci koñ bi te parce que kilifa yar bañ nan ko ba def li ñu war a def tëj seen biir kër. vraiment dugguñu ci dara kon loolu bettuma. macha allah macha allah su ko defee dañuy daal di indi suñu beneen invité rek ale su ko defee moom mu mu jege si ñu mun a ànd ak moom ci waxtaan wi nga xamante ni moom lañuy am ak moom. kon su ko defee ale bismillah ñu jox ko kàddu gi incha allah mu daal di nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan d'abord. kon ñu jox kàddu gi ale ale yow nga présenté wu wax ñu lan nga doon ci quartier bi. dalal ak jàmm nuyu aussi la direct comme ni nga ko waxee rek suñu xarit Ousseynou ñu tudd Alé Samdi Ndiaye nekk ndaw dëkk ci fi nga xamante ni mu nekk quartier Grand Thiaré de Luz mhm. ex Maguette Diallo ñu koy ñaanal suñu borom yërëm ko amiin yërëm doyen Ngalandu ak mag ñi nga xamante ñëpp bokk nañ ci quartier bi ak ñi mhm. sax ci quartier bi te suñu borom leen yóbbu leen àjjana Firdawsi mhm. léegi nag quartier Grand Thiaré de huis quartier Abdou Diop mhm. parce que suñu borom loolu la dogal ñun ñu nekk ndaw bokk ci comité bi nekkoon ci li nga xamante ni peut-être mooy liggéey bi mhm. ci jamonoy Maguette Diallo ngalam ba tey suñu borom dogal Abdou Diop nekk ñu ànd ceeg moom mu nekk délégué de quartier bi en tout cas dama ñu résumé nii rek mën a présenté au public li nga xamante ni peut-être Euh, sànq ñu ngi waxtaan ak délégué euh, gis nañu maanaam tudd nañu côté éducation Euh, te ku wax ndaw wax wàllu éducation euh, tey euh, domaine bi ngeen di yor muy quartier bi xëy na amoo leen compétence su def lu bari waaye nag mën ngeen a redresser xale yi nga xamante ni ñoom ñoo di ndaw ñi ci quartier bi nga xamante ni moom ngeen nekk pour ñu gën a mën a soññaat seen bopp ci li nga xamante ni moom moo di njàng mi ndax gis nañ tout récemment année bii ñu génn comme ni ma ko waxee sànq rek gis nañ ndaw loo xamante ni bokk na ci xale yi gën a xarañ ci région de Dakar bi tey en tant que yéen ñi nga xamante ni bokk ci comité bi nga xamante ne mooy saytu quartier bi tey nan ngeen programmé lu ne mel. waaw Ousseynou question bi am na solo ndax li nga wax mooy li am boo xoolee Ndeye Alima Fall dafa nekk élève bi nga xamante ni moo nekkoon premier au niveau na mhm. il y a un an ou deux ans de cela suñu borom comme ni ko Abdou Diop délégué de quartier xale yi mu nekk jabaatam nekk dëkkandoo bokk ci quartier mu nekk une grande fierté pour toute la commune de Guinaara rawatina quartier Grand Thiaroye de mhm. ñun suñu borom bu ñu nattoo ñu nekk ci domaine bi nga xamante ni éducation la on doit parfaitement contribuer à la bonne marche de l'éducation au niveau commun au niveau de de ce quartier. Mhm. te waxuma la ci domaine éducation tout court rek la ñu war a contribuer mais commune bi ou bien quartier bi dafa am sa yéene def ce qu'on appelle benn PAV plan d'action volontariste. ok boo xamante ne nii comme ni ko délégué waxee léegi chaque mois wala chaque six mois wala chaque année dañ nan quartier bi ci lii lay dox. Mhm. donc éducation benn pàcc la ci. parce que lu ci bari délégué wax na mais éducation dañu am yéene ndax ñu ngi profité aussi de cette occasion di nuyu doyen la leen mbay. Mhm. waxtaan nañ ci lu bari waxtaan naa ci Gabriel ji war naa ko ñu waxtaan ci ab Diop aussi il est au courant parce que dañoo gëm ni quartier bi dafa da nekk un quartier modèle. Mhm. sur tous les plans parce que li ko war a wane mooy li nga xamante ni renouvellement

boole ko ci programme bi nga xamante ni tous les élèves ici de cette euh, de ce quartier. Mhm. yi mu leen di jàppale par rapport des cours de euh, renforcement. ne serait-ce que ñu ko def des week-end de révision. Mhm. pour appuyer élèves yi nga xamante ni peut-être ils ont un niveau faible. Mhm. par rapport ak ñi nga xamante ni mooy seen jàng. loolu nekk na loo xamante ni programme la par rapport ak li nga xamante ndax dana yomb. bon du yomb dina yomb dans la mesure où. bu fekkente ni nii suñu borom dimbali ñu parce que sàng boo xoolee bio bi ñuy présenté commune bi. ak di jóg tudd na fi ñaari école yoo xamante ni nii peut-être ñi ngi ci biir commune bi. ok te en collaboration avec ces écoles privées en collaboration aussi avec la municipalité. en collaboration avec tous les bonnes volontés yi nga xam ne nekk na ci biir quartier bi. Mhm. gëm naa ne day nekk loo xamante parce que euh, cours de vacances yàgg nañ ko def de manière gratuite. cours d'accompagnement yàgg nañ ko def de manière gratuite donc am nañ ci expérience. te am nañ ci benn xam-xam boo xamante ni peut pour ñu def ko. Mhm. yaakaar naa lu lu lu lu yomb lay doon. lan ngeen di xaar ci quartier bi. waaw quartier bi comme nous avons ko waxee laaj euh, un quartier modèle parce que bu faites continuer, da nga dem ci élection mhm. boo xamante ni nii naam élection daana am par rapport à yi mhm. mais su arrivé à un certain moment mu am changement changement comment ko ci li nga xamante recensement parce que venir ñuy dem ci élection mu am 328 maisons yoo ont ni moom lañ recensé suñu borom natt ko dimbali ko parce que damaa ko un mhm. parce que gagné bi un parce que bu fekkee nga am 220 voix ce, ce adversaire wala ce concurrent am 43 voix ñu am 5 bulletins nuls. Mhm. kon yaakaar naa ne population bi wala quartier du Mont fal. absolument fal bu falee nag. Mhm. dama naan nattu parce que yan la. waaye olof day faral di wax naan yan bi na oyof man dama naan yan bi na bis te suñu borom defal la loo su ko mën a mhm. parce que lolu mo am solo. donc li ñu koy xaar ci quartier bi wala li ñuy xaar ci quartier bi puisque ci membre lañ ji dafa bari mo xam ci domaine sécurité wax nañ ko sang ci transformation céréale ou le flux. légumes yi nga xamante mhm. j'en profite aussi de cette occasion parce que récemment rek bi avant installation démarché na partenaire au moins 50 femmes mhm. ci trans euh, euh, euh, formation boo xamante saponification la ak Nous ni ñuy defaree saabu ak ni ñuy de javel mhm. loolu nous, ni am nañ ko suñu yi possibilité ce qu'on appelle autonomisation boo xamante ni dina leen permettre davantage ñu mën a ñu mën a voler de leur propre zèle te lool su amee aussi dañuy xaaraat yeneen pas yoo xamante ni nii quartier bi mhm. ñu gën ko jëmale en avant une commune sous-équilibrée pourquoi pas des journées yoo xamante ni aussi mon quartier sans déchet nga xamante ne ni après l'hivernage nga mën a def benn journée de nettoyage de set setal mhm. journée de reboisement xoolaat sécurité bi nga xamante ni par rapport ak doodaan yi oto yi ni ñuy doxee ni ñuy daw mu gaaw mhm. ñu xool ni ci renforcer davantage di ralentisseur yoo xamante ni ñu permettre macha allah macha allah mu ngi noonu ñu sant ko gërëm ko moom aale ci question yi nga xamante ni tontu na ko mbokk yi ba tey ñu ngi ànd ak yéen ci li nga xamante ni moom moo di xamle ak sa quartier euh, tey ñu nekk euh, ci quartier bi nga xamante ni moom moo di quartier Abdou Diop euh, su ko defee rek dañuy daal di woo keneen muy Kaja moom bu ko defee ñu mën a ànd ak moom rek incha allahu daal di koy woo waxtaan ak moom incha allah. waxee rek ginnaaw boo xamante ni rek sànq délégué wax na ko. Euh, liñ doon xaar ci état. wala ñu ko doon xaar ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite bokk moomeel bi muy mairie bi euh, tey bu ñu demee ba gis ab délégué di ko def muy indi ay partenariat ñu leen di jàppale ci maanaam mu ngeen mën a defee ba gañ di pain maanaam ngeen mën a euh, defar savon mën a defar eau mën a defar yu mel noonu tey bu ñu demee ba euh, délégué de quartier indil leen ko en tant que jigéen nga dëkk ci quartier bi lan gisee lu mel sant yàlla rek ginnaaw yàlla ba ñu fi indee délégué bu mel ni abdu mi ndax ni yàggoon naa doon suñu mbëbët mais ñu gisu ñu jigéen ñi gisuñu ko ñu jàppale ginnaaw raay jigéen ñi femme lañ dañuy teel a xëy di guddee wàcc mais bañ yàlla tegalee ku mel ni Abdou la ñëw ne ah dangeen war a jug nag takkoo liggéey booloo doon benn ñëw leen ma defar leen projet Abdou jàppale ñu ci projet bi ba yàlla def na ni defal nañ fi savon dafa fi ay eau de javel dafa fi ay madaa te Abdou tax na ñu gis yeneen ak yeneen ak yeneen te affaire bi pareeguñu ndax ba yu ñu defaroon sax yëpp jeex na ba ñu ngi waaj a kon ku mel ni Abdou bu ñu fi amoon ñaar ba ñett kon dañuy sant yàlla waaw. lan lañuy xaar ci moom xanaa yokkute rek ndax Abdou mii jeune la de mais mun na tey réew mi parce que doon na koo xam ne dafa juddu ginnaaw raay yaroo fi màggee fi xam luy dox ci réew mi xam lu dox ci ginnaaw raay te buñ la falee kan moo neex a fal mooy ku fi dëkk te xam lan lay nit ñi di dund kii dafa bokk ci ginnaaw raay. yaroo fi màggee fi xam nit ñi lan la ñu bëgg ak lu ñu bëggul te chaque jour defe naa si suñuy bëgg-bëgg rek lay topp mu ngi si ñun ñii nekkaat waa si jeunesse yi nekkaat waa si élèves yi ab du bàyyiwul kenn chaque jour mi ngi xool loo xamante ne day gémmale ginnaaw raay kanam. macha mhm. euh, euh, euh, moom moo di waxtaan wi ndax am na ay questions yu ñu war a aborder ak. Euh, délégué te question yooyu euh, maanaam dugaguñ ci te li ñu dese ci waxtu bareetul xam naa dañuy daal di waaris yi ñu may ñu rek euh, quelques simili ñu a aborder sujet yi nga xamante bëgg ko allah jërëjëf euh, Kadia euh, ci kàddu yo am solo yoyu batay ñu ngi toga keneen ko xamanteni ci quartier bi le dekk mom modi khalifa khalifa ginaaw ginnaaw buñ la nuyoo ziar la ndokkeel la ci li nga xamanteni mom modi moo seen émission xamlé ak sa quartier euh, tay nga dekk ci quartier bi tay buñ doon wax Abdou Diop mm. quartier bi lan nga xamanteni tay bëggoon nga Abdou gën ko yokku ci li nga xamanteni ginnaaw bu ñu ko dénkee quartier bi. waaw bisimilah balaa ñuy tàmbali di nuyu waa Pikine TV bi di leen sant di leen gërëm ci déplacement bi waaw Abdou li ñu mën a wax ci moom bari la. Mhm. parce que ñoo ko juddoo ñoo ko juddoo ñoo ko yar kon li ñu mën a wax moom bari na xam naa du xaj ci benn ay quelques minutes. Mhm, mhm. waaw parce dafa nit koo xamante ni. sama jarbaat bu baax baax a baax. macha allah bu jëlee ba tant que ndaw. en tant que ndaw mu muy comme ni nga ko waxee mu baal ma ci kàddu yi en tant que ndaw ngeen yar ko euh, tey ñu def ko délégué mu am initiative yor ko noo xamante ni yorul yu mucc ayib la yéen ñi nga xamante ni yéen ay prosam maanaam ay jege ñaaleem tey bu ngeen amee message bu ngeen koy lancé ci quartier bi lan lay doon. waaw message moom weesuwul yemale ñëpp. waaw yemale ñëpp te xam ni ku ko voteel ak ku voteelul duñ ci xàmmee kenn parce que moom moo jiite quartier bi. moom la ñëpp di wut si tey ñu ko woteel démb bu ñu ñëwee ak ki ko woteel day yem kepp ci ñoom benn la ci ñoom bu mhm. dëggu di yemale lépp di àtte lépp teg ci yoon comme ni ko benn baat joxe soo buggee mucc ku tooñ dimbali ko ne yaa tooñ ki ñu tooñ ngeen ko jéggal waaw lépp daal bu tegoo ci yoon mhm. yaakaar naa ni lépp fu mu soxla dina ko dem incha allah macha allah jërëjëf ñu sant la gërëm la jërëjëf léegi délégué ñu tëj ah ñu aborder ñu voilà kon jërëjëf mbokk yi su ko defee sax euh, ñu fàttali ni am na sax ñoo xamante ni ci comité bi lañ bokk ku ci mel ni Jibi Jaata nga xam ni moom mooy secrétaire bi waroon nañ ko jox kàddu sax waaye xam ngeen ni euh, tele moom xam ngeen ni waxtu lay demee te xam naa ni boo deful ndànk sax sama technicien dina ma gàcci gàccal ndax sàcc sàcc naa ci ay heure jàmbur yoo xamante ni moom dina ma comprendre su ko defee Abdou mu mel ni dégg nga ñi fi yëkkati kàddu yëpp kenn ku ci ne wax na euh, fi nga xamante ni fi ñu la fi mu la fekkoon ak fi mu bëgg ñu jëmale ko fa maanaam fi nga xamante ni moom mooy quartier bi euh, sànq seen jaay wax na lu am solo euh, ki nga xamante ni moom moo dëkk ci quartier bi tey ak ki fi dëkkoon bu yàgg ñoom ñëpp ñu bokk yem. parce que parfois da ngay génn si mbedd ñu naan dafay yàlla dafa def lii ma yar. Mhm, ñu nee yaru na rek da ngay xool ñu koy xoolee rek ci na ci lañ dëkk te ñu ngi ñaan ñoom mhm. mhm. parce que àtte euh, dafa jafe. léeg-léeg nit ñëw nga jox ko ne ko yow yaa yaa tooñ sax mu yaakaar ni moom lañ tooñ yaakaar ni da nga xeex wala naa nga mën a affaire yooyu mhm. mais man loolu aw ci problème parce que euh, parfois sax dañuy dégg nit ñi la tooñ naan la nekk nga délégué te falaguñ la nekkoon nga délégué te falaguñ la kon mhm. xëy na loolu bu ma ci saxee rek mën naa ni problème mën na mën xaw a xaw a xaw a ñàkk mhm. beneen bi si topp mooy euh, dama gis ne yor quartier pour man système la rek parce que ñun bi ñu falee dañ ñu mbir yi war a duñ ko yemale ci comité de quartier kase dañ koy gën a yaatal. ñun dañ def benn euh, comité de sage boo xam ni. Mhm. presque dugg na lu mat trente personnes te dinañ ko gën a yaatal. Mhm. dañ dem ci koñ bu ne gox bu ne jël ko ñaar ñetti nit utal leen ay bant ne leen ay délégué ngeen fii ngeen toog war ngeen mën a régler problème te du ko yëg problème bu ko amee bu ma ko waree régler ci ñooñu laay jaar pour régler ko. ok parce que parfois mën nga mën nga mën nga dem ci koñ di régler problème mais histoire mën nañ la bañ a rus. Mhm. mais am na ku dëkk ci quartier boo koo xamante ni boo ànd ak moom buñ ko séenee rek coono yi. Mhm. man yooyu ñun comité bi dañ ci liggéey ràññat des genre nit ñu mel noonu. Mhm. xamal leen ni yéen kat da ngeen a bokk ci ñi war a doxal dëkk bi. loolu def nañ ko ci mun naa ne boo xoolee koñ bi am na am nañ bu mot juróomi mbedd yu mag yoo xam ni. ku ci nekk la dafa jël ëpp na juróomi mbedd. ñoo xam dañ leen ni carrément yéen jàppee leen seen bopp ay délégué. macha allah loolu yaakaar naa même même su ma tukkee sax. Mhm. kon ñu war na mën di dox. parce que ci nekk réglé nañ ko teg nañ ko fi nga war a teg lépp ci gox bi. Mhm. waaw moom vraiment mun naa ni na ci xel mhm. parce que ñu ngi koy sóoraale. macha allah euh, sa diggante euh, yow Abdou ak yeneen délégué ndax euh, au niveau du Guinaw Rail Nord mu ngi composé fukki délégué de quartier ak ñaar fukki délégué de ak ñaar yooyu sa diggante ñoom ak yow relation bi. Euh, ñi ma kilifa sama kilifa lañ moom laa leen def la preuve à nekk bi ñuy def élection yi dafa mel ñoom ñoo def élection tellement que dañ ci yóbbaloo di ci xeex pour man ma am daal. ñi nga xam ni maa leen ci mag dañ ma jàppee grand frère ñi ma maaseel ay morom lañ. récemment léegi sax ñu jógee réunion ci maire bi maa ngi leen ko wax looloo gën a guddee émission dañu am groupe WhatsApp di demalante di dikkalante chaque fin du mois dañu def ay biir vraiment am nañ benn cohésion boo xam ne si suñu biir entente boo xam vraiment gëm naa ni peut-être délégué yi ñu sax mun yaakaaruma am na. <laughs> macha macha allah li ñu cëralee ci waxtu mat na waaye dañuy dem sunu rubrique bi nga xamante ni rek euh, maa ñoo ngi ko tuddee euh, rubrique bu am solo muy ñun ak yéen Abdou lan mooy sa plat euh, lan mooy sa plat préféré. plat préféré mu ngi noonu kon euh, téléspectateurs yi yéen ko seetaan mu ngi noonu délégué nee na moom yaasa moom mooy euh, li nga xamante ni mooy plat préféré mais kon képp ku mu ñëw sa kër rek euh, mën nga ko daal di waajalal li nga xamante ni moom moo di yaasa waxtu wi dab nañu lépp lu ma la waroon laaj te laajuma la ko wala yow loo bëggoon ñu waxtaane ko te jotuñu cee àgg lan lay doon ak kàddu tàggatoo yi. waaw mun naa ni daanaka xëy na émission bi xat na mais lu bëri du wax di woowaat waa quartier bi yëpp comme ni ma ko defee woon keroog bi may installé dama leen ni képp ku yaakaar ni yor nga toq ndox boo xam ne war nga ko mën a sotti ci quartier bi pour mu jëm ca kanam demal loo xam ne bu ko defee rek quartier bi ko nit naa bunt yëpp man ku ma yaakaar ni amal nga njëriñ quartier bi naa dem seeti la képp nag ku ma yaakaar amal nga njëriñ quartier bi naa dem seeti la te intérêt quartier bi moo xam ko encore une xooluma si ma sàmba wala ma dem fu intérêt quartier bi nekk dinaa ko jël bu yeboo ku may vraiment bu yeboo ku may bëgg bëgguma wala ku may topp topp faluñu ma pour sama intérêt intérêt gox bi moo tax fu mu nekk dinaa ko jël di remercier sama famille nag jigéen ñi nga xam ni sama yumpaañ la am na ñoo ma yaay di leen sant di parce que boo xoolee comme ñi wax nañ ko defal nañ leen formation cinquante femmes demee demee dañu war a defaat beneen formation. macha allah cinquante femmes allah euh, loolu nag ma ciy sant ku ñuy wax sëñ Xaadim Jaaw sant boobu baax yàllaay buur yàllaay buur macha allah. vraiment muy sunu xarit ñu koy nuyu au ci ci élection yi laa ko laa bi élection yi di jub ci laa ko xam parce que suma benn wóllëre boo xam ni vraiment bi mu ne dañuy def élection mu ni ma séq nañ loo xam ni aw ma lu ma la dimbalee mais am naa xarit bu ma la mën a ànd ak yow ma dem foofu nag mu ñaanal ma. ne ma bu neexee suñu borom yàlla dina la may ndam ma ne ko bu ma yàlla may ndam bu may installé dinaa la sargalee jour installé boobu te dama ko waxee woon def naa ko moom it mu amee li may def ci àll bi ay jigéen dinaa la ko defal bu jàppal bi ma def mu nekk njëriñ ma koy ñaanal bu baax di wax encore une fois maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne ki tax wala ñi tax yàlla indil ma lii ba xew fii sant parce que mënu ma leen a fay yàlla ko yàlla yërëm te xaare gën a poussé si lii ba yàlla dogal yaa su ma sañoon da koy fekkee beneen bis topp mooy ma ne ma dama toogal ñu foofu mhm. maa leen sant bu baax di leen gërëm góor bi maa ngi amoon na parce que boobu Moussa na xool da ngay xam ne kii vraiment bëgg na xale yi yëngu tey suba affaire bi comité de quartier bi mention spéciale. macha allah jël nuyoo bi teg ko si Lamine Mbaye ak maire Lamine Dramé di ñaan yàlla malaatam moom nga xam ne moo ko teree ñëwoon sax ci installation bi nekk nit ku yëngu mooy président Badiane gox ginnaaw bu baax comité de quartier ma seen fay sama dëkkandoo bi ñu sol si élection yeeg ci monté drapeau bi. ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di gërëm waa quartier bi di gërëm benn maam biñ fi peut être biñ fi dese wala benn yaay bi walla ñaar farsaw si suuf ak mère Diogu nga xam ne ñoo ngi des comme ay kilifa ñaari kër bu baax di di gërëm waa quartier bi bu baax. bu baax sama kilifa bi muy sama papa parce que lu ñuy wax rek boo jubee xare geesu gis sa kilifa sa xel mu nagal. Mm-hmm. dama jub xare. mu tàbbi samay loxo xëy na tawal moo ko indi woon mais ñëw boobu mu ñëw rek sama xol def si sedd parce que dama jub xale rek naa ni sant yàlla la ngeen woo ma. munoon leen si bañ fekk. maa leen di sant di leen gërëm parce que yaa may toon naan ma ndax xamoo ma la wax dëgg yàlla xaw ma la kon ki la xam gëstu la ba ñëw ci yow di def yow émission mënoo koo fay maa leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax di gërëm nag xam ne moom bii baa moom bu ma ko fàttee dina ma lay Maguette secrétaire Maguette Gaye secrétaire maa lay sant bu baax di la gërëm dañ la wax ni sa bant dina ñëw yow moom sa bant dina jar ma woo de waa dëkk bi yëpp takkal la ko ci digg waa dëkk macha allah secrétaire maa ngi lay sant di la gërëm macha allah góorgóorlu rek domicile moom ah dama koy dajale rek ba bu ñu lay takk ñu jëndee ko la macha allah macha allah macha allah jërëjëf euh, Abdou Diop euh, jërëjëf mbokk yi nga xamante ni ñoo ñu doon seetaan waaye tamit di joxe yóbbante boo xamante ni rek yóbbante boo am solo la euh, waaw Abdou dafa mel daa am lu mu bëgg a wax. Oh, waaw. di gërëm soxna yi di gërëm soxna yi bu baax a baax. mat na ko nag foofu moom mat na ko moom. gërëm soxna yi bu baax a baax a baax ñu mën a muñ lañ. Mhm. waaw di leen gërëm di leen sant di leen gërëm bi ma yor ci kër gi fii maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax ku mën a muñ la. macha allah waaw parce que foo muñ ci tamit boo ñëwee day ànd ak dalam ànd ak sagoom di sant tamit fa ma jëm nii boobu sant naa ko gërëm naa ko bu baax a baax. macha allah ñëpp maa leen sant leen gërëm di sant famille. jërëjëf wax dëgg yàlla. ñu macha allah jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy baaxoo seetaan seen télévision Pikine TV xam naa ñu am yóbbante boo xamante ne rek dañ koy indi waaye mais waa ASC Jokkoo nee nañ sama koñ fa ma dëkk nee nañ maa ko moo leen xeex ci ci ci ci nawetaan yi ba tax ñu gañe leen waaye loolu moom amul ko lool lool loolu amul crasse dinañ ci dellusiwaat. loolu amul trace dinañ ci dellusiwaat. Euh, ay ca mu ngi noonu loolu yóbbante la boo xamante ni ne waa ASC Jokkoo ñoo ma ko yóbbante woon. ndeysaan ay nit yu baax lañ man jokkoo manko mango gi ginnaaw yaakaar aw ma ko sensibiliser. yow ñëpp lu am solo la nekk sa invitation dafa tombé équipe mhm. lu am solo la installation bi ak équipe bi ñu Zé mhm. dafa tombé macha allah su ma demee yaakaar mhm. Lamine Mbaye suma xarit la su ma demee ginnaaw raay Alassane Diagne dama ñuy Diagne ñëpp sumay xarit la absolu jàmmoo la même chose ñoom ñëpp. seet saa ñoom ñëpp mun naa leen a lim su ma leen lim. jokkoo suma kër la. ndeysaan mango gi suma kër la. seen président bi may def élection ñaan lu sax def na ko. ndeysaan. seen président. ñaan lu sax def na ko jàmmi loolee may def élection lu nekk la dem. ndeysaan allah. nitu nawetaan mhm. bi après dama nawetaan. macha allah jërëjëf euh, jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy baaxoo seetaan seen télévision Pikine TV waaye jërë ngeen jëf ñi nga xamante ni ñoo ñuy topp seen émission xamle ak sa quartier tey mu nekkoon quartier Grand Thiaroye 2 bis euh, quartier Maguette Diallo waaye ñu gën koo xam léegi ci quartier Abou Diop tey moom la ñu seqaloon waxtaan wu am solo wi di leen jox dox daje incha allah beneen quartier ak beneen délégué jaa ngeen jëf di sant bu baax a baax euh, Moustapha Bangar mi nga xamante ni moo nekkoon ci wàllu caméra yi waaye ci wàllu technique bi incha allah beneen yoon ak beneen délégué jërë ngeen jëf.